marhaban leader politique Yewwi Askan Wi daal di fanaan seen guddi gu njëkk ci biir kaso gi ginnaaw ab manifeste bu ñu nemmeekoo na ci réew mi ci àjjuma bu ñu génn na ci li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi libération ne ñu Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye député yi leen di Déthié Fall mandataire national coalition Yewwi Askan Wi ak Mame Diarra Fam daal nañ leen placé sous mandat de dépôt ni ki démb ci altine gilee loolee waral yéenekaay Les Échos ne ñu Déthié Fall Mame Diarra Fam Ahmed Aïdara daal leen dugal ci biir prison bi yéenekaay Le Quotidien ne ñu Déthié Fall ak Mame Diarra maanaam ni ki ëllëg ci àllarba gi lañ leen fas yéene ci tribunal bu Ndakaaru maire bu Géejawaay Ahmed Aidara moom ni ki ci àjjuma gu ñuy dëgmal lañ ko fas yéene àtte ji ci tribunal bu Géejawaay yéene kaay l'observateur ne yile kàngam ya fare ci opposition bi li ñu leen di toppee moo di bokk ci ab manifeste bu ñu daal di tere ak trouble à l'ordre public Birahim Seck coordonnateur forum civil di yëkkati kaddu ci biir yéene kaay le témoin di xamle ni mandat de dépôt mi ñu daal di gàll ci loosu Déthié Fall Mame Diarra Fam ak Ahmed Aidara ñu daal di fanaan seen guddi njëkk ci biir kaso gi loole nag teguut ci yoon te kenn mënu ko nangu ci joojuley jamono yéeni kaay vox populi mu ngi di katak ñun ci ab pexe bu yees di maanaam nouveau plan de guerre bi coalition Yewwi Askan Wi fas yéene tëral suñu yi nañu ñaar fukki fanak ak juróomi ñeent ci weerum juin fas yéene nañoo amal geneen manifester waaye nit ki ëllëg ci alarba gi daal dinañuy sakku itam ci askan wi ngir ñu àndandoo defu bu concert jëmale ko nag ci ay casserole ak i klaxon bu juróomi ñetti waxtu ci ngoon jotee waaye yemuñ ci ndaxte itam fas yéene nañoo clamé ji njiitu réew mi Macky Sall ci kanamu këru attakaay yu ne ci réew mi ak ci bitim réewa loolee waral Walf Fadjri Quotidien nañu Yewwi Askan Wi daal di nañuy activer seen ñaareelu plan ndaxte xeex bi nga xamante ne moom la ñu door ci seen diggante ak nguur gi xaajagut bee jeex li koy firndeel bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi moo di ne waa Yewwi Askan Wi te la ñu gën a dogu dina si pexe ngir mën a jàmmaarloog président Macky Sall yéeni kaay bés bi le jour dëggal xibaar bi ne ahankay waa Yewwi Askan Wi ab agenda bu bees la ñu daal di tëral jamono jile tembe ginnaaw bu ay bakken rote ñu teg itam loxo ci ay nit ci ajuma bu ñu génn suñu naataango yi ñu nga xam le yeewi askan wi daal nañu jëlaat kaddu ngir diggée ni bii lay xeex dinañ ko génnee réew mi yóbbu ko ba ci bitim réew waaye laata loolee suñu naatangooy bés bi le jour ñu ngi xamle ni Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ak seen ay àndandoo daal nañuy xamle ni fas yéene nañoo delluwaat mbuum ci mboy mboy ga akub manifester bu rëy bu ñu namm amal ñaar fukki fan ak juróomi ñeent ci weerum juin waaye duñ ci yem ni ki ëllëg sax la ñu fas yéene door seen ay ñaxtu ak sakku bu ñu sakku ci askan wi ngir ñoom ñëpp ñu àndandoo defu bu concert jëmale ko nag ci ay waaye itam ak i ci boobu le concert de casserole yéenekaay Source A mu ngi xam le ci xëtam gu njëkk ne daal dinañuy anticiper spectacle ba ndaxte ci daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi daal dinañu koy door jàpp ko démb i ay palanteeru néeg la ñu taxaw yoru seen ay casserole di koy fëgg ndar keppe ko yéenikaayu enquête mi sukkandiku ci bëccëk bu ñu jagleel ni ki tey jilee ci àdduna wërngal këpp waaye daw lakku yi ngir fësal ay jafe-jafe yu tar ñuy jànkonte la bu ñu sukkandiku ci suñu naatango yi réfugié yi di maanaam waaye daw lakku yi ñoo ngay toll ci téeméeri million ci àdduna wërngal këpp mu bokk ci ñoom junniy tu tànk ya nga xamante ne seen ay waajur ñoo leen jëlee ci seen ay réew daal di utali beneen réew ngir àbb yaakaar si dund bu gën a ñoŋ bu dee fii ci Sénégal yéene kay enquête mu ngay xam le ni ay tu tànk yu bëri daal nañu amee jafe-jafe rawatina ci ni ñu mën a jote seen ak ak yelleef jàngeen jëf